الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نكون في صفات الذين يقرؤون القرآن لغير الله melokaane ñi nga xamne dañuy jàng alxuraan te yàlla taxut cheikh mu Muhammad ibn husayn al ajurri rahimahullah taala neena akhlaquhu akhlaqul axlaaqul juhaal yaakaar naa lañ taxawon neena na koku kooku ko xamut la rek فقال qaala محمد بن حسين الآجري أيضاً فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون نينا كيب كو خامل نك داغي جانغ القرآن واي جيكو يسا جيكو لا داغا فتنال أجيكو فتنو لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحصن بمثله اقتدى به الجهال ndax ñi nga xam ne ñooy jàngkati alqouran ak niti diine yi suñ jëfandikoo wala ñu mel melokaan woowu nit waru koo mel nee na ñu réer dañ leen di topp loolu mooy danger jàddug borom xam-xam asbir nakun bi ka saabirina fa innama sabrul raiyati inda sabri rasi loolu la waaji waxoon abdullah ibn abbas radiallahu anhu mu ni fa ida ciiba ala aljahili qaala fulanun alxaamilu li kitaabillahi faala haada nee na keneen ku ko mën a def ci ñu xamul dara soko beugé ayibal mun la xana gisoo diw mokal na alquran te da koy def wa nahnu awla an nafaala te ñun kon man nañ ko def ginnaaw waa alquran koy def lolu moy danger ku ñuy roy ci yow wala ku ñu jàpp ni xam nga lo def rek nit ñi day jàpp ni lolu lu valable la mënees nako daldi daldi def da am na ñoo xam xamuñu dalil xamuñu alquran xamuñu sunna xamuñu dara lu ñu xam moy فلان عالم يقتدى به فعل كذا فعلناه لولو موي غرافيتي بي موتا عذر الجاهل ليس كعذر العالم نيت كي خمول من ام غانت تي كانم يالا الك واي كي خم دوكو ام داخ داغا خم بنوب ومن كان هذه حاله فقد تعرض لعظيم نينا كيب كو خامني ني غا ميل غارال غا سا بوب تي لو ري te mooy danger bu mag wa sabatat alayhi lxujjatu te nee na layu yàlla taxaw na ci sa kaw layu yàlla taxaw na ci sa kaw awalam nuammirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkara wa jaakum an nadir nadir jaakum qaamat alaykum lxujja layu yàlla taxaw na ci sa kaw wala uzra lahu illa an yatub nee na te doo am ngànt tam doo bokk ki nga xam ne jaahil la xamul dara ki xamul xamul donte nag léeg-léeg jahluhu laa laa yu'zaru bihi nag laysa kullu jahlin yu'zaru bihi al-jaahil lu ñàkk xam gu nekk moom la ñuy gàntal ku xamul ndax dañ lay wax ne loola teewoon a xam waaye nag léeg-léeg bu dee mbir yu xóota xóota xóot la danañ ca jéggal ku xamut ci luñ dul jéggal ko xam nit moom bu xasee xam rek dugg na ku xam ku xam muccul ku xam rek tey nga dee boo xasee xam kay yow saye yàlla faaw mu laaj la yow xamoon nga nangam nga ne waaw mu ne lu tax defa ko wa innama xadaani ala ma bayantu min qabiha hadihi al axlaaq nasihatan minni li ahli al quran nee na nag li ma joo li ma yóbbu ci ba may wax lii ak jikko yu ñaaw yi du pour ayibal kenn wala pour detteel kenn wala ngir jéba a wàññi kenn wala ayibal kenn déedéet waaye nasihatan min nii li ahli alquran ne lol loolu bir dong la buma ma ci wa ahli alquran li yataallaqu bil axlaaq alsharifa ngir ñu mëna jokk ci jikko yu kawe ya rek lam yaqsid bihi rajulan bi'aynihi bal hadha la yaxil lim waxon ci ay jikko yépp du dafa xol jënn jëm rek bam mu neex mu ni ko diw yow lay wax wala muy garal dedet la laa bakhi lahu zalik borom xam-xam la yajuzu an yata'arrad lil insan yu'arrad fulan wa alanan la bal yahkum hukman amman da fay jox atte bo xamni bu général la ku gis sa bop ci bir nga xam ya ci gis sa bopp laakin la yaqsulu insan bi aynihi nabi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan waaraatee même bu gisé kenn def dara sax day ñëw bu ci jakk ja muni ba ni qawmin يعمم الحكم دائما لا يخ... لا يعين احدا صلى الله عليه وسلم كون لي تخ مو ديف لول رك موي غير نيت نيغا خا نيو جانغ القران ام اي جيكو رافت ام اي جيكو يوهان يو باخ لا ويتجافوا عن الاخلاق الدنيه ني سوري نك جيكو يو سوفي يتجافوا ني سوري جيكو يو سوفي اي ندنا ايات كوي جانغ القران الكريم دا ورا كاوي كوم ني القران كاوي مانام نيت daan inda tashabuha bil kiraami falaaxu te loolu sax muy tabiatul bashar yàlla ni mu lu nekk rek dafay imité di toppandoo la mu la mu dëkkal day toppandoo la mu la mu dëkkal waaw ku nekk la nga bëgg a doon bu ñu la gisee rek ñu gile ak ah, kii day nangam nga ni ah, kii de xanaa moom diw lay xanaa kii de diw lay toppandoo ñu ah moom de tabaarkalla kenn mënut lépp waykat yeeg fecckat yeeg tëggkat yeeg gis ko wàcc ay tubéy ba tubéy kenn du ko mën a xool rek ñu ne diw lay toppandoo nga gis ko wat bopp ba sëriñ ba mel ni ab pucc ci kaw ñu ne diw lay toppandoo waaw xam ne bu am kook buy dox mel ni doxu kinaara rek yaabaak ubbi tank yek fu ne mu jaar takk loxoy ba melni ab wotir bu lay romb kajang kajang melni wotiru watiiru sëñ bi la romb ñu ne diw kat diw lay no wa yow nga yor alquranul karim nga yor alquranul karim ko no war nga ngaa ndo nag yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom moy sayyidul qurra'i wa sayyidul muqriin sallallahu alayhi wa sallam kon rek mu wallahu yuwaffiquna wa iyyahum lirrasad mu ne yalla na yoonu واعلموا رحمنا الله واياكم اني قد رويت فيما ذكرت اخبارا نانا لي ماي واخ دو داما كو واخ رك واي داما كوي رواي تاميت جيلي كو تي اي بوروم خام خام داخ ليم دون اندي ليب داكو سارد نون رك اي واخي بوبام اي واخ اي واخ اي واخ يو خاني داف كو تك بد ولا يدم نون واي تيول نك دانا تي واخ يو خامني داكو غيس موم ولا مو رواي كو تي اي كليفا بن تي صحابه يا ولا صحبه يونس صلى الله عليه وسلم ولا تابعون ولا تابعوا تابعين xadis bi mu ci jëkk a indi mu ngi ko jëlee ci xadisu nadr mu jëlee ko ci abi abi firas mu jëlee ko ci omar ibnu xataab radiallahu anhu mu ni laqad ataa alayna xiinun omar ibnu xataab mooy wax nee na ab jamonoo ngi woon fi nun وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى نينا أي جمانو نغي وون نوي دوندو جابون وون كين دانا جانغ القران تا يالا تخوت لوتخ هذا الجيل هو جيل الصحابه يوم نوي ين جنراسيون بيغا خامي يونتي مول يار بوبام نيو ما شاء الله فلما كان ها هنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم نينا واي نو أبدير mu dem ba ragal ni nit ñi am na ci ñooñ danañ jàng alquranul karim te nit ñi leen koy tax di jàng ak la nekk ca loxoy nit ña kii moom day jàng li yuqaal qaari moom looloo ko yitteel kee day jàng li yuata darahim yaani ku ci nekk ci ñoom ñaar baax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax li nga xamante ne ñett ñi njëkk dugg sawara comme ci moom cër ba mu leen ci mooy li yuqaal qaari jàngkat waaye am na ci kanam kook nag moom yooyu sax itteelu ko moom moom na jàng nga jox ko xaalisam wala nga jox ko dara mu teg moom dem yoonam li ci des yëpp yaa koy lijjanti fa aridu llaha taala bi qiraatikum wa amalikum am ray wax de mu ni jublu leen yàlla ci seen njàng mi ak seen jëf ji fa inna kunna naarifukum id fiina rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam wa id yanzilu lwaxyu mu ne nun nag xamoon nañ leen yéen ñëpp xamoon nañ leen ndax booba wax yoo ngi wàcc ko jàdd alquran wàcc ni la jàdd nga lu waaye def ci sa néeg boo génnee yàlla wax la ko alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum wa afa ankum wal aana bashiruhunna wabtaqu ma kataba allahu lakum te pourtant loolu ci biir néeg yi la doon xewe yàlla ne xam nañ xam nañ li ngeen di def ci biir néeg yi kon amar nee na booba xam nañ leen lu waaye sàcc def yàlla daal lay feeñal وإذ ينبئنا الله من أخباركم لجين من دف يالا دانا نكو فاما اليوم اما لغي فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي يونت بي نكتو في كي وحي نكتو في وانما اعرفكم بما اقول لما لين دي خامي رك موي لي فيني من اعلن خيرا احببناه عليه كو لو باخ nu bëgg la ci lu baax loolu nga wane wa zananna bihi xayran ñu njort ci yow lu baax tam wa man adhara charran abgadnaahu alayhi ku wane lu bon ñu bañ la ca mbon ngoo gii wa zananna bihi charran ñu njort ci yow lu bon sarairukum fi ma baynakum wa bayna allahi azza wa jal seen li nga dina ba nag seen diggante ak seen borom loolu mooy lan maanaam dafa am ñaari jaanib ñaari facette jani bu nit ki ci bopam ni mu wara protéger bopam ba kenn du ko tumal yaronte bi lan la wax man ittaqa subhat faqad istabraa li dinihi wa irdi kep ko moytu lu ñuy leunt fek nga sa diine ak sa abder na maanaam nit da ci wara dox nit dafa war a dox ci moytu ndiku di def luñ koy tumalé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis génn na guddi ànd ak soxnaam safiyatu bint xoyeyin radiallahu anha bi mu génn ci mbedd mi rek ñaari saxaaba di tëll gis yonent bi rek bëgg a dóor marche arrière yonent bi leen déet kaay leen kii sama soxna la safiya la ñu ne ko ah yonent bi ñun kay duñ njort ci yow lu ñaaw yow mu ni déedéet fa inna seytaana yajri min ibni aadama majra dam seytaane day daw ci nit comme ni deret di dawe ci moom man ngeen genn waaw ki nu gis du yonante bi ah kay ki andal ko doon nga ah man do xomako mu doon ñoo da melni ni la lolu ku ko xalaat yonante bi alko serign bi lolu mu jarat nga xalaat ko rek yow yaq nga jaxet ya, ah man tax yonante bi wolen leen bañ ñëw di len ki sama soxna la pour muy leer ba la ngeen genn naan ah diw ak folaan ak allah lolu lan aslun azim fi tabriati zimma lolu ab règle bu bu bu bu am solo la ci setal sa der ab julit dafay setal ab deram fep fo xal bo fa demee wala lepp lo xam ne ko wala ko xam ne soo àndee moom ñu mën la tumal ak moom bu ko def soo ko defee yow ya ubbil nit ñi ñuy wax ci yow wala ñuy ñaaw jort ci yow parce que nit ñi ñu xam ci yow luddul li nga feñal nit ñi duñu ay yonant duñu leneen duñu ay lan léeg nga dégg duñu ay jinné jinné da xam lu wul léeg-léeg nga dégg ñu naan jinne li mu weesu la xam euh, la lu mu weesu fàtte na ko waaye lu ñëw ci kanam la xam mosees naa gis lu mel nii loolu dëgg la loolu dëgg la pourtant ay jàngkat ñoo koy wax léeg-léeg jinne li mu weesu la xam la fàtte maanaam moom sens contraire lay doxi lii ñëw lay xam mais lu weesu mu fàtte ko bisimilah jàmm mosees naa gis lii loolu alxuraan moo ko weddi falammaa qadaynaa alayhi l-mawta ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سنأتهم فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون أل الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بدي خمول لي نيوكي دون نيك دي لغيل كو دي لول أي تاخان كيب لا نيت مو غنى فور جنة تلول بنيك نيت بنو كوغم نيت مو أب بيسانس فوف جنة نيت مو أب موتخ يالا يوني أك رسالة تي نيت تي يوني وكو تي جنة jël xilaafatul ardi def ko ci nit iblis mu nga fa woon ba yàlla di wax yonent bi yàlla bi yàlla di wax maam aadama naan ko inna jaalnaaka xalifatan fi ardi ko wax daawud di wax jinne yi ak malaaka yi yépp wa id qaala rabbuka lil malaaikati inni jaailun fi l ardi xalifa booba kan la ci jubloon aadama nit la booba malaaka nga fa jinne nga fa te yàlla tànnu ci kenn def ko xilaafa kon nit moo ëpp puissance jinne ñu del siwaat kon nee na man li ngeen di wane laa xam loolu mooy jaani bu yow ci sa bopp bi ci des na mooy jaani bu yow mi nga xam ne yaay kii xool nit keneen comme yow d'accord war ngaa rafet njort ci koo gis war ngaa néew looy tuumaal nit war ngaa dëggulu bala ngaa jox ab àtte wala tajassasu wala yaxtab baax baada bul di reju di espionner doomu aadama di ko jéem a xam même boo demee ba am ay doute bul àtte bala ngaa teg nit parce que loolu dafa garaaw bala ngaa àtte nit ci ni moo def nangam moo wax nangam danga nga caa war am lan ilmal yaqin waaye nag nit ki na dimbali boppam tamit waaye bu dee lu maanaam lu lu lu ne ñu fekk la ci lu dëng lu nekk yaa nga ci biir ah doo neex a setal tam nag doo neex a setal de moo tax Omar ibn Xataab ne daal bu ngeen wanee lu baax ñu àtte leen ku ko wanee lu bon ñu àtte la bu dee alxaakim nag ab àttekat moom du àtte lu dul li mu gis nit dinañ ko tëj condamné am te deful dara loolu du tax suñ suñu àtte yi mais ba ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ma euh, yaman lu mu leen wax léeg-léeg kenn dana gën a neex aw làmmiñ gën koo xorle ba mën a wax ba convaincre ma ma jël aloon jox ko waaye ku ma jox alali jàmbur xamal ni sawar laa la jox am na ñoo xam tey mën nañ mën nañ laa tooñ wax ba wër la moom kay moom moom kay xam naa am na kii di wax a wax ba sëñ bi yow mujj waaw am na ñoo xam ne mënuñoo wax am na ñoo xam ne amee problème sax dañuy jooy ku mel noonu bu amee problème yow foo koy am na ñoo ne bu ñu meree rek dañuy jooy rek ñoom mënuñoo wax benn baat ñaari baat yu booloo mënuñu ko wax keneen nag mu ngay faral faral war war war bañ jox ko dëgg est-ce que daa tax mu am ko mais pourtant loolu rek la la islam sant nag. alqaadi yaxkumu bi ma yara xatta laa bi ma yaatiqid sax ab juge ab àttekat tey bu doon xëyee këram gis ab sàcc fee mu gis ko muy sàcc mu toog tuuti ñëw ñu indi ko tribunal pour àtte ko mu gis ne waa ji ab sàcc la sañu koo àtte ci lim gis naan ko ah yow koy xamoon naa ne dinañ indi fii yow sàcc nga daal di ko déedéet laa budda min shahada kon moo tax loolu moo tax Omar ibn Xataab wax loolu jële nañ ba tey ci abi firaas moom mu jële ci Omar ibn Xataab xaw mel nii xadis boobu waaye def caa dolli rek mu ni qad xaafa maanaam moom moo wax sax cheikh bi ni ginnaaw Omar ibnu Xataab moo ragal ci aw nit ci jamono jooj yii ni danañ jàng xam ba pare àddoo tax leen jóg kon nag fama baaluhu fama zannuka bihimul yawma waaw ginnaaw jamono Omar ibnu Xataab ngay gis ñooñu mu ne ragal naa ni yéen ñi dinañ am ñoo xam dañuy jàng rek ngir àdduna jamono jooju mooy jamono yu afdal يعني خير وي جرونتي خير نيون خير قرون قرن دا يرونتي بي صلى الله عليه وسلم مولا يارال بوبام نيتي ديس يرونتي بي صلى الله عليه وسلم مولا يار ني يار نينن نيون امول كو ملني نيوم صحابه كين كين كو لين دي غيس امول سين بند دونغ دوكو غيس لهم من الله كتاب سابق لذا كما شهده المنافق يالا مو بيند سي تير بو نيك با مانام برلين نيوم برلين اندك ني عمر ابن الخطاب واخنا سي نيوم لو ملني yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena batay moy wax borom téré bi yakulu aqwamun yaqra'una alquran yuqimunahu kama yuqimuna alqidha yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna neen dinañ dem ba jamono nit dina mokal alquran diko mokal ba nit ñi xatché ab manam bantu manam euh, ak fit xamni dañ ci xoc non la jubal ay jang alquran mu jub lol wa yata'ajjaluna dañuy daal di bëgg way fayee ko léegi te yàlla leen ku bëgg ma fay la léegi ma fay la man kaana yuridu aajilata ajjalnaa lahu fiihaa na la liman nuriid summa ja'alnaa lahu nag jahannama yaslaahaa waaw ku bëgg léegi ma fay la moom yàlla moom bëgg ma fay la léegi mu ne walaa yata'ajjaluunahu te duñ ko wute àllaaxira mukk loolu nee na am na ñu def loolu waliyaasu billaahi taala am na beneen xadis boo xam ne bu daif la Muhammad ibn al-Munkadir moo ko nettali jële ko ci Jaabir ibn Abdillah من خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه يعني بس يرون تبدأ dafa genn ñu jang alquran ñi arab ya nga koy jang ajami mu ne ah ngay bo kuy jang nga tel aw nit danañ jàngal quran ba mokkal ko lool waaye àdduna képp a leen di tax a jóg xadis boobu nag am nañu ko daifal xadis bi ci des ñu ko jële ci euh, ibnul mubarak mu jële ko ci moussa ibnu ubaydata rabazi yu mu jële ko ci abdullah ibnu ubaydata ci mbokka ba mu jële ko ci sahl ibnu said saad asaidi radiallahu an nee na bay naa nax nu naqtari naqtari u nee na bisa ngoog ñuy jàng id xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jàng rek yonent bi daal ni seef ci sunu biir daal ni alhamdulillah kitaabullahi waxidun wa fiikumul axyaar téere bi yàlla bi benn la te ñu yiw ñu baax rek ka nekk seen biir saxaaba yi ñépp a baax alsaxaabatu kulluhum udul ñépp a baax ridwanullahi alayhim mu ne wa fiikumul ahmaru wal aswad am na ci ñooñ xonq nañoo yu islam xamul hadihi التقسيمات العنصريه كي دا نيول كي دا ويخ كي دا فيرت كي دا بلو الاسلام دا نيول لمحاربه هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا فضل للعرب على العجم der yi yàlla moo ko bind def yi ñuul yi def yi weex def yi xonq def yi vert yi def yi zone ay fadlin amu ci benn der iqra'u alquran من جانغل القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه من جانغل القرآن دي جانغلين كبلا أو نتنيو يوخم دن كوي جانغ مكال باري لول لا يكادون يخطئون فيه من نيو جانغ بأقل دجوم من بين يونسخ واي لا يجاوز تراقيهم du romb seen telli baat tarqiya jamu taraqi comme ni ñu sortu qiyama dhanna ah qalla idha balaghat taraqiya fa qila man raq neena du romb seen telli yi du ko romb dañuy jang rek yam ci lamagne wi waye du ag ci xol bi yataajjaluna ajra dañuy bëgg ñu fay leen ko legi wala yataajjaluna te duñ ko maanaam nit dafa am ñetti parti nit dafa am aljaanibul maarifi mooy bopp bi ak aljaanibul wijdaani yi mooy xol bi ak aljaanibu al jawaarixi al iktisaabi ñetti yooyu nag mooy àndandoo xam-xam mën a am njariñ bopp moom loo ci def mën naa baax ki gën a wedd yàlla mën naa mokkal alxuraan ki gën a wedd yàlla mën naa mokkal alxuraan mën naa jàng bopp moom comme ndaala rek bool moom bool moom loo ca def rek boo ca defee ndox ndox la boo ca defee am soow soow la boo ca defee sàngara sàngara la boo ca defee leneen ak leneen loolu la kon bopp moom nit du ci rawee kenn bopp bu fees rek nii la al mustashriquuna yi ñi nga xam ne orientaliste yi dañuy mokkal xadis yu baree bari mokkal alquran mokkal lu baree bari di bind ci lislaam di yàq rek am na ay borom xam-xam yoo xam ne sax orientaliste yooyu ñoo leen raw kon xam-xam bi du problème léegi nag mu am nag aljaanibul widdaani nag li nga jàng mu agsi ci xol bi nga gëm ko li ko ba bopp bi fees dell mais yoonam day naba jàng rek di jàll lu ko neex def ñu ne kii mooy ki jàng alxuraan wala xanaa kii mooy muy muy naba jaane yoonam te boo ko ne alxuraan yàlla xam ne ko tari fan yi maa ngi gis ci internet bi xawma na yàgg as ndaw soo xam ni mu nga mel wax ni kenn mënu ko xol yabdu anna xafidatil quran ci jigéen ñi taxawal ñu ci di su meeku def yaramu neen day tari alquran sëñ bi nga xam ne kon xam ak gëm jotewuñ dara bu loolu amee xol bi agsi nag aljaanibul alxaraki nag jëfe doogu di ñëw loolu ñett yi ñooy ànd xam-xam mën a am njëriñ léegi nag bu fekkee nit ki bopp bi rek moo fees bu mu loolu rek la jitte bu bopp bu fees mën naa jàng ba raw ñëpp waaye mën naa gën a dëng ñëpp xala mën na koo raw parce que agsiwul ci xol bi te bu agsiwul ci xol yi du mën agsi ci cër bi kon loolu la yonente bi salallahu alayhi wa sallam di wax jëlewaat nañ ba tey ci ibrahim ibnu alxaaris mu jële ci ibnu haadi mu jële ci abbas ibnu abdulmutalib radiallahu anhu mu ne qaala rasulullahi salaa sallam yadharu hada ad-din hatta yujawiz al bihar neena diina ji yalla dina ko feñal ba mu jegg geej la shak lolu am xol fa l'islam takke jaziratu arab sun digeunte ak makka kenn xamul ñaati kilomètre la li gëna gaawlu nit di war soko waron moy lan avion yi tay moy ñaati heure le senegal makka ji 16 heures de temps bu fekke vol direct nga abi bu ni coppete ndakaaru rek daanu ji bir jidda presque agra 16h de temps wala bu jige ko wala hmm yakana 16h de temps la suma juumul xool leen seize heures de temps abi yo xam ngeen ñaata heure kilomètre lay daw par heure fa wala l'islam fete lu ko indi ba fi jamono jooju bi l'islam di dugg fi ba at la islam dugg fi mu arre xone yi ba neen la fi tasaaroo am état islamique fi 1040 mille quarante ñu ngi ci lan ñu ngi ci deux mille vingt trois deux mille vingt trois boo ci mooy mille quarante ñaata ci des hmm? deux mille vingt trois nga mooyee ci mille quarante leer ay ndaw bopp yi funax laay musuma gis lu mel ni naam ah 2023 ñaari junni ak ñaar fuk ak ñett nga génne ci junni ak ñeen fuk. junni be loo fa soxla junni bee nga xam ne ñumb la rek loo fa soxla pour mottali 23 yi ah du 17 17 nga fa soxla 17 boo ko tegee ci 23 mooy ñaata oh 23 ah 27. ala kulli xaal kon gis nga daanaka lislaam bi mu amee état fii léegi léegi mu xaw a mat junni kon lislaam jamono jooju lan moo amoon tabaan booba xam ngeen ni ay avion booba amagul yu fay dugal ay nit ñoo doon dox ak seeni tànk ba dugal fii lislaam jaare ko ci murabituna yi jaare ko ci ñu nga xam ne mooy cheikh euh, abdullahi yasin waar jaabi mi nga xam ne moo njëkk taxawal fii état islamique ca fuuta tooro ba l'islam tasaaroo ci liñ tudde al sudan kon jaawaz al bihaar te yonte bi waxoon na ko salallahu wa sallam wa bil xayli fi sabilillah nee na dina dem ba ñu ay fas ci yoonu yàlla suma yati qawmun yaqra'uuna al quran nee na ay nit ñëw na di alquran qara'uhu qad qara'na al quran seen yitte yëpp seen mérite moy jàng nañ alquran fa man aqra'u minna ken gënunoo mokkal fa man a'lamu minna ken gënuñoo xam lorak rek moy seen yitte lool rek mooy ken kenn gënuñoo xam kenn gënuñoo mokal alquran te lool da nga gis dañ koy bàkkoo lu baree bari at yu mujj Sénégal man alhamdulilah ci wàllu avancement bu baax a baax ci njàng mu rafet parce que bu njëkk sunu maam yi mënoon nañu bind dañuy bind alquran ko ca nam gën a rafeti ci mbindiin ca nam gën a wére xam ne bu ñu ko bindee ba noppi kenn mënu koo corrigé waat mbind mu wér lañuy bind bind yuraauna fiihi qawaid ar rasmi wa dabt mais min xaytul ada nag da ngay gis ne desoon na parce que yenn xorof yi mënuñu ko woon tudd waaye fii awin al axira ak al madaratul xadisa yi ma alhamdulillah gis nga ni ñu ngi jël ay trophée yu mag yoo xam ne ci àdduna bi lañ koy jël ay markazul awal markazul thani fi almusabaqat al duwaliya al alamiya léegi loo dégg ñu wax Sénégal kenn raw ko ci alxuraan ci ci te waxuñu Sénégal raw gi mu raw ci alxuraan ci lan la ci jàng rek la ci jàng rek la mais est-ce que ni ñu rawee ni ñuy jël ay trophée ci almusabaqat duwaliya yi noonu la ñu rawee ñëpp ci tatbiqul quran est-ce que noonu la boo génnoon fii tey di dajeeg société sénégalaise bi di leen xool bu ñu leen ki raw ci alquran fii Sénégal dëkk est-ce que duñ ko mën a gëm kon ñun ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci baat yi te baat yooyu dañ ko war a romb nañ ñëw ci jëfe ko mu ne summa altafata ila ashaabi fa qaala hal na fi ulaika min xayr yonte bi ndax gis ngeen ñooñu aw yiw ngi ci ñoom koo xam ne day jàng rek naan ko ma gën a jàng ñu ni laa mu ni fa ulaika minkum واولئك من هذه الامه واولئك هم وقود النار والعياذ بالله من يونت بن نيون نك كي لا ني بوك نيون تي سينو خيت وي لاي بوك نيون نوي تال الله سورا مو جام داني جانغ بر دون جوفي لين جانغ جيلنا وات نانتي ا مجاهد مجلتي عبد الله بن عمر من كنا صدر هذه الأمة أم لا من عمر نحن نحن جيتو خيد بي نحن في نجك فين نحن سيكل بابو وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا صورة من القرآن da nga daan gis koo xam ne ci ñi gën ci القران Abdullah ibnu Omar bi jàng na bàqara huit ans juróom-ñetti at <laughs> est dañoo naqaroon ay xel déedéet da nga defoon ñun saxaabi ñun ñun ñoo leen gën a neex ay xel loolu ngeen ah? hmm? ñoom dañoo ak ñoo neexoon i xel sax parce que ñoom aslan ay arab lañ te arab seen cosaan yépp wax la duñu bind ummatul ummiya la wax la lépp dañ koy wax ñoom wax rek comme sénégalais yi wax rek ñun moom bu ñu wax rombee bay boo xam ne yàqu lañu wax kese bu la kaarab wax bi rombee <laughs> yow jeex na sénégalais kay bu waxee ba pare moom kal kon ñoom dañuy wax dañuy mokkal tamit noonu la ñu amee ay mémoire yu baax lan moo tax saxaaba yi ñi ci mokkal alquraanu karim nekk ñu tuuti lan moo tax loolu duñ ko laaj lan moo tax ñuy jàng suratu baqara juróom-ñetti at yow nga di ko jàng alquran yépp ci ñeenti at aw mu ne wa kaana alquranu thaqilan alayhim nee na alquran dafa diisoon gann ci ñoom wa ruziqul amala bihi waaye ñoom ay quran yu doon dox lañ ci min xaysul amal jëf parce que ñoom dañoo gëmoon ne ku jàng ab aaya rek waajibun alayka an tutabiqa tilka al aaya benn aaya jàng nga ko rek dafa war ci yow nga jëfe ko moo tax ñoom booy jël da ngay jël lu yam lo mëna jëfe war dañ daal daaw ñu jàng lu ëpp fukki aya buñ ko jàngee ba pare dem jëfé ko ba pare doog nga ñëw jëlaat mu ne wa inna akhir hadhihi al umma yukhaffafu alayhim al qur'an neena ñi mujjé ñëw ci xeet wi nak al qur'an day wayef toll ci ñom hatta yaqra'uhu as-sabiyyu wal ajamiyu fala ya'maluna bihi nee na ajami yoonu yeeg ñépp di ko jàng doonte xadis bi jam nañ ko nag waaye maanaam mi day wér de nee ñu di ko jàng te duñ ko jëfe li ñu am ci ay kàng xoolal daara yi li muy li muy produire li muy génn ay muxarrajaat yi ñu am ci li ñuy génne daara ju ne la leen gis ñu naan génne ñu ren téeméer jàng xufaat ñaar téeméer par année mais loolu est na taasiir na ci dundu société sénégalaise bi est-ce que loolu ñu ngi koy gis société bi di changer jikko yi di gën di baax mais ñun dafa mel le contraire mooy am daara yi dañuy génn ay afwaaj ay nit yu dul jeex at mu jot ñuy génn ay nit yu dul jeex mais société bi di gën di bon mais loolu war na am taxaw seetlu ndax ñun dañoo jàngaleetul alquran je yonent bi doon jàngale ah kay moom la de. mais dañ koo jàngaleetul comme na ko yonent bi doon jàngalee sallallahu alayhi wa sallam loolu nag lahu iddatu awamil am na ay mbir yu baree bare benn mooy ñi dugg ci liggéey bi te bokkuñu ci njàngum alxuraan dafa am ñu ci dugg te bokkuñu ci bu njëkk nit day jël doomam yóbbu ci daara ji ni bi ay yaxam laa loolu nag lu am solo la rawatina ki nga koy jox nga wóolu ko nit day nekk ci daara di jàng di jàng di jàng ba bu ñibbee du xàmmee yaayam yaayam da koy romb nit du ko xàmmee ñu koy woonaan ko kii mooy sa yaay bu sëriñ bi paree ci moom da koy jàngal def ci moom yarub alquranul karim nit da daan jël doomam yóbbu ci daara mu feebar fa ba faatu buy dem di ko suuli ja rakki kooku lay yóbbaale bu demee wàcc ko fa ndax kooku bokk naa ki xam ne boo doomoo amee ay picc dong ci mu ñëw naan daara ji xale ñu sangu euh, du ñu hygiène xaw ma hygiène xaw ma koo xam ne doomam mën naa dee ci mu jël rakkam bàyyi fa bokk na ko xam ne doomam bu amee ay picc képp bu ñëw ay hygiène ak ay jóob <laughs> ay ay ay juuf kayif la parce que kon ñii la leen lii jaraloon jaral ko ñii li ko waral nag léegi mooy ñi ci dugg te bokkuñu ci daara ñi ci indi seen doom te bokkuñu dafa bari am na koo xam ne alquran na ko jar am na ci bu bari sax alquran lañ bëgg bëgguñu leneen lu dul alquran neel benn ñaar am na koo xam ne doomam ji dafa xamul nu mu koy def dugal na ko français nanguwul la jàng français mu dugal ko ci métier nanguwul a jàng métier mu ne xel mi neexul naa ko yóbbu ci daara ji xel mi neexul naa ko yóbbu ci daara ji pour def débranché wu ci mom ak bañ mu yak ak bañ mu taxawalu ci ñen ñaar ki day yóbbu domam pour ak kiss ndax bu alquran jiitoo ci sa bop lo jangat day gëna neex ñun nañ ko yóbbu ci daara ji su démé ba mokal tuti ñu jël ko yóbbu ko école di jéem nax yalla <laughs> da nga xamul ko yalla rek ay yalla ku ko xam do ko jéem nax lolu kenn amna ko xamni koo ji ne doomam jii dafa dafa koo munta yor mom ñaara ngi doon sey tas nañu doom ji yaay jaa ngay liggéey baay bi mënut a toog doom ji amuñu fi ñu ko def nuñ ko nuñ ko yóbbu ci daara ji rek mu far toog fa dina ko fa yóbbu mu am na koo xam ne moom daa ñëw rek fekk doomi jàmbur mokkal alxuraan mu kontaan ci ah ba de bëgg naa sama doom mel nii daal di jël doom ji yóbbu daara gis nga ñii ñëpp ñu tudd lu dul ku njëkk ki problème bu daara am ñoo ko indil ku dul ku njëkk ki rek lu daara am ñoo mënuñoo muñal daara. bu bu sa doom amoon ñaari at ci daara ñet at wa mom moo këlugul tàmbali calculer ah wéro dé ma ngi fay 30000 30000 fois 6 mois prendre nangam nangam li nangam li xajon na ci moko ko jëndoon ciment mo ko won béton tàmbali di indi ay problème bis bu né oustaz mé ki moo këlugul mais oustaz kii njàng mi daa yeer non loolu pourquoi pour nangam di lakki tuba ko sëriñ bi gis na maa gis lii fekk na mom indi ko won pour mu jàng mais dafa am benn temps bu ndaw bu ngi ko bëggoon rek tek pour mu mokal wala mu def leneen mu yobbu bu doomam amoon jafe-jafe ci daara parce que nit ku nekk fa nga dëkk fa ngay wére fa ngay feebare fa ngay dunde fa ngay dee bu feebaroon donc boo ñëwee ne ko ah moom bi daa xëy biir bu di métti ah mais xanaa ñoom li ñuy lekk baaxul ah tey wallaahi daara ja moo gën yow sa kër moo gën sa kër foofu lañ fay lekk mais non xare lu ñuy lekk genre je kii su fa dee nag moom wal iyaadu billah loolu lépp muy ay muskila yoo xam ne moo tax wax dëgg yàlla ñële amoon nag duñ ko mën a am wallahu almustaan jëlewaat na ba tey ci abu abdirahman nee na kaana abu abdirahman yuqri'una saib moo ko jële ata ibnu saib moo ko nett ne abu abdirahman daf ñu doon jàngal bis fa qaala yowman mooy abdullah ibni masud قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرثن هذا القرآن قوم نينا القرآن جي أو نيت دي نكو دون يشربونه كما يشرب الماء دنجكو نان كوم ني نان ندخ ولا يجاوز تراقيهم واي دو رومب سين تيلي بالي قرآن ني غيس كوم داكاي موكال سي نياري ات ني ci ñetti at gis naa koo xam ne mokkal alquran ci sept mois ala xasa bi ma qaal mais gis naa moom koo xam ne dama ko deux un an deux mois la ko mokkal quatorze weer am nañu am xel yooyu am nañu ko am xel yooyu am na ñoo xam sax mën nañu ko mokkal ci at yasrabunahu kama yasrabul ma dañ koy naan comme ni ñu naanee ndox waaye laa yu jaawisu taraqiyahum njàng mi képp lañ ci am mais duñ ko duñ ko jëfe wal iyaasu billah jëlee nañ ci yaxya ibnu muxtaar mu jël ci xasan mu ne inna hada alquran qad qara'ahu abidun wa sibyanun laa ilma lahum bi ta'wilihi nee na alquran ji ñépp a koy jàng su mbux loola abid ya jaam yaag gone yaag ñépp a koy jàng waaye nag laa tawila indahum nee na xamuñu lu muy firi bal am na ñoo xam sax seen yoon nekkul ci loolu xoolal li ñu al juhdul al juhdul yaani mahdur yaa coono bu kasara xam ngeen lu kasara xam ngeen kasara mag ñi ñoo ko daan wax billahi doomi kasara ji mooy koo xamante ni amulul boppam njariñ amulul mbokkam njariñ bu la ko mag musaana wax ay doomi kasara ji xam ngeen ko kasara maanaam daar yu bare bari li ñuy liggéey dañ koy daal di basar dewaat xale bu mokkal alquranul karim alhamdulilah toog tari tari bu njëkk boobu yi takk képp la mais du mokkal de nga génne xale bi yóbbu ko école wala nga yóbbu ko feneen bu amee waxuma la at mais deux mois képp su ko amee soo ko bëggee tareloo waat juróomi xel du ko man juhudun yaa ni mabzura yaa ni coono bu ñu kasar rek la ñu baree bari ñoo xam ne newoon nañ mokkaloon nañ jaaroon nañ daara am na ñoo xam ne xisib sax mënatuñ koo tare dañuy jàng di wàcc dañuy jël di dañuy jël coono boo xam ne dañ ko waroon a conserver sonn ci xale ba mokkal alquraanu karim nga waroon koo téye conserver ko ba alquran ji du mais nga bàyyiwaat ko ba mu mel ni ku musta dal alxuraan kasaraa ngi noonu moo tax liggéey yu bari bari dañ koy liggéey rek mais dañ koy sottiwaat ci géej gi rek noonu xale bu mokkalee alxuraan lu mu gàtt gàtt war naa toogaat ñaari at yoo xam ne ñaari at yoo xam ne day toog ci biiru xalqa di jàngale di di tariwaat ba alxuraan ji sëxëñ sëxëñ ci yaram bi saf ci sàpp xam ne foo mën a dem doo fàtte mais mokkal rek ñu daal di yóbbu waaw xale yi tamit duñ bëgg a toog ci daara yi papa kañ laay dem ah bëgg a dem fee ah bëgg a dem daara yi bàyyi Fatou daara yi bàyyi Ibrahima Ndiaye daara yi bàyyi Mor Xuma laa bëgg a jàngee léegi fekk du question mais daara joo a dem ñu nekk daara yi bàyyi Ibrahima Xuma ñu ngi naan man damaa bëgg a dem daara bàyyi Paate Fall fa laa bëgg a jàng <laughs> ku nekk daara jóge nekk yaa ngay bëgg faa jóge pour dem ci jeneen daara. maanaam toogaayu daara moo metti parce que lu tax est-ce nga lu tax daara metti parce que nit bëggul ko naa ko defal bàyyil daara defal bàyyil tëddal heure wàccal heure képp moo ci metti te nit bëggul loolu lu mu bëgg mooy firi dañoo bëggee firi firi jot jotagul ci yéen firi xale bu ndaw boo ko firi mu yàqu daara yu njëkk yi da nga daa gis ko mokkal toogaat ci xalq juróomi at fukki at di jàngale ñooñu ba keroog ñu dee alquran day day day sëxañ ci seen yaram wi waaye boo bokkale ñu daal di génne nga dem taxawaalu ji at du ko mat sax ñaari weer képp dootoo mën a tat xisib loolu juhudun mabzuur la coono boo kasar rek la wallahu mustaan mu ni walam yataawalu l amra min awalihi walam yataawalu l amra min awalihi nee na du ñu firi alquran duñ ko seetantal te yàlla dafa wax ne kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun li yaddabbaru ayatihi yàlla nee na alquran dafa ko wàcc ngir ñu xam li muy firi wa wa ma tadabbaru ayatihi illa tibaahu moom moo ko firil boppam de nee na seetlu alquran nag mooy topp ko rek wa amma wallahi ma huwa bi xifdi xurufihi wa idaati xududihi tawil alquran du loolu mokkal ay aayam fàtte ak sank ay atem Hatta inna ahaduhum la yaqulu qad qara'tu alqur'ana kullahu fama asqattu minhu harfan wa qad wallahi asqatahu kullahu neena de gis ko xam dara man jàng naa alquranul karim man na ko tari duma ci rotal ben bat bu njëkk sax dañ ko daan fitante fit ko xam ko xam day jàng alquran bu bu tare ay waxtan ba pare tarewaatub ay waxtan pour wan la ala xadar bi mu am ci alxifz wa matanatihi kon mokkal na ko waaye du ko jëfe nag taaxuraan kat yi ngeen fi naa gis yëpp ay ja ay ay ndongay woon di bu njëkkit amoon na daara yi amoon loolu min salbiyaati daara yu njëkk yi la am na ay ijaabiyaat yu bari mais am na ay salbiyaat salbiyaat yi bokkoon na ci mooy da nga gis ñoo xam ne dañ daan jàng ba mokkal doon ay ponkali ay ndongay daara yor seen i ndënd di taajaboon afa bin haazal hadiisi taajaboon aaya taajaboon foofu la jógee di taaxuural di teug di fecc fu ñu dugg fa ñoo ko daan dem ay ndogé dar la woon ñu mokal alquran ñaan daan doon di ci boole ay ay di teug di dóor ñoo ko daan def loolu xam nga tamit bokul won ci wax deug yàlla parce que bu jëkkit naaxiya tarbiya wi ci côté diine xawoon naa des almuhim mu ne maa yuraadahu alquran fi khuluqin neen kenn du ko gis alquran ci jikom wala amali wala ci jëfëm hatta inna ahadum la yaqulu inni la aqra'u surata fi nafasin ñe ya, di est ko xam day bakku sax naan ak genu nokki man na ci tarib ay man na ci tarib aw sa am na ñoo xam ne noonu lañ daan def diggante timis ak gée nga tar ci bak nga tar ci kamil dañ ko daan def mais est ce que loolu jàng la diggante timis ak gée ñu ni mën na cee wàcc kamil même sax ñoom rapidité boobu dañuy jàpp ne mooy mooy baax da gis koo xam naan 30 minutes ñun dañ ci wala une heure de temps dañ ci wàcce kamil déedéet déedéet alquran dañ ko war a jàng قراءة مفسرة والله ما هؤلاء بالقرآن ñen ñoon duñ القرآن jàngatal Qur'an ko القرآن ne naan نوي mën naa genn noy يعني قراءة الحذر في حقيقة عند بعضهم ليس تحقيقا ولا تجويدا إنما هو هذر الحذر نوع من قراءة من القراءة والأداء donte mooy gën a gaaw mais loolu laa yaani idaata al ahkam tajwidia la abadan mais am na ko bu ñuy wax doo xam sax lu ñuy wax xol ñuy wàcce kaamil ñu bari ab gis o ñaari xisib nit mën koo jàng ci lu mat ñaari minute wallaahu yasimuka mina naasi yow benn baat lay wax nga xam li ci des lépp doo ko xam hada qiraa hada laibul quran yaa axi loolu loolu caaxaan alquranul karim dëgg la moo tax même wàcc kaamil waxuñu sax atte charia bi ci am ndax sunna la wala biddaa la mais ni ñu koy defee ci boppam rek ab juzu nga yor ko mu ne ab jukki ñaari xisib daanaka mën koo jàng ci benn minute loolu moo tax mu ne ñooñu jànguñu alquran mu ne moo tax mu ne mu ne wallahi ma haulaai bil qurra wala al ulama duñ ay borom xam-xam tam parce que borom xam-xam duñu am na loo xam ne ñemewu ko waral xukama amuñu xel sax walal wara aragaluñ yàlla mu ne mata kaanat al qurraau an taqula mithla hada nee na kañ la ab jàngkatub alquranul karim di mel nii mais it am na ñeneen ñoo xam ne ci naar yi tamit am na ñeneen ñu am jàng yu bari ngeen di gis fi naar yi di mbëkk ay miir ak yooyu yooyu yëpp euh, ay ay dëj leen di woo rek waaw xam nañ ñoo xam ne ñoo xam ne booy dàng da ngay dégg naar di mbëkk miir yi ci suuf loolu tamit du noonu alquranul karim aqdasu min zalik wala kasara allahu fi nnaasi misla haula jële nañ ba tey ci قيس ابن سعد مجرد مجاهد مي في روخ يالا جمني يطلونه حق تلاوته بمعنى يعملون به حق عمله ني خن نيو جانغ القران دغ دغ جانغ موي نيكوي جيفه دغ دغ جيف جيلن نتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذا الناس نائمون من ورنا نيو خم بروم القران تي غودي بو نيدي نلاو إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفترون تي بتيغي بو دي لك كنان وبورعه إذا الناس يخلطون تي اك سام بو نيت ني دي جاخاسو لو نيك ني وبتواضعه إذا الناس يختالون مو واتي بوبام بو دي ري ري لو وبحزنه إذا الناس يفرحون waye ci njaqare gi mi xam ci digam ak bopam bu nit ñi ci ay jooy yi xol ak jooy biti bu nit ñi dee ree imaamu Nawawi wax na ci attibiyaan mu ne alquran ku koy jàng war ngaa jooy soo jooyul sax na jooy jooylu su munte jooy jooylu fal yépp ki ala adami bukaa kon na jooy ak ñàkk jooyam wa bi samtihi ak dalab idan naasa yaxuuduun bu nit ñi dee rajax rajax war nga nak am ben tamayiz kon yi yeb ay melokan la ben bi laylihi حافظ القرآن لكتاب الله عز وجل عليه أن يكون له ورد بالليل ولو ركعتين فقط أقل شيء من بدأ نيار ركع على سخ من ورقه كجولي سخ قد نيان سبرم روتنا حين ينزل الله عز وجل في حين يبقى الليل ثلثا أخير وعي باري ورنا باري لمي وو rawatina jamono bi ngay sàkku xam-xam parce que ñaari ndab du feesandoo ci nit ñaari ndab du feesandoo mooy ban biir beeg bopp bi du feesandoo këll kuluñ la ma la fa duy sa biir ba mu fees nga duy sa bopp ba mu fees ala munte nekk du nekk mun munte nekk moom kay da ngay jël biir bi duy ba mu fees <laughs> bopp bi xaar <laughs> bopp bi moom day xaar bopp wala boog biir bi xiif bopp bi mën a fees jàngkat du jang jàngkat du du suur jàng waaye léeg dóor rek dóor dóor dóor sans are di mul rek <laughs> ah, di aj waaw jàngkat boo xam day rek ya. di aj tàpp rek bu yéeg la la yaaxi jàngkat yi dañuy da ngay jamono bi ngay jang lolou da ci wara gëna parce que waxuma la sax mën a parce que nit pour mu mën a fokk mu xif nit balaa mën a mokkal dëgg-dëgg foog mu xiif mais bala moo am lu ñu di u zihni xel muy mën a xalaat parce que jàng du question mokkal rek mais dafa am loo jàng loo war comprendre li ngay soxla woo wéet doo soxla daw daa coow lu bari noonu ngay soxla woo biir boo xam ne dafa xiif ci lay xel mi doog a mën di lan di naaj moo tax daanaka ñi nga xam ne ay dóorkat lañ du nga xam dara man ngaa mokkal nag mais doo xam kon loolu dafa war mu ni wa bi nahaari ida annaas muftaroon wa bi waraihi ida annaas yaxlitoon mu nekk ko sàmm nag naa mu sàmm lool ci boppam balaa moo yàq boppam ndax dafa am loo xam bu xasee gàkk ci yow saye bay bu nga yow bay nga dem da war gis say wax sàmm sa li ngay lekk sàmm aar sa bopp al ilmu nuur sakawtu ila wakiin suu a xifdi fa arshadani ila tarki maasi fa qaala alam bi anna al ilma nuur wa nuuru llahi la yuta liansi kon laa budda an yakuna warian yatawaada wàcce boppam wàcce boppam yaa Ousmane ab jàngkat yow melal aw daal la rek rawatina ci ñi nga xam ne jàngal tawaada lahum parce que loolu kat inna tabib inna al muallima wa tabiba kilahuma لم لم لم huma lam lam ngi ni ku leen respecté wul do am ci ñom dara ab docteur ak ku lay jàngal yow docteur bi lay faj ngi xex ak mom di dorante ak mom man la pigir sax nga jaar fa de mo lay faj nga nek fa di giite nga sa mom loolu man na nek waye ki lay jàngal tamit boo dee gis a ngante moom même bu la même bu la nangu la jàngal sax même bu la munta bañ a jàngal sax lu lënt la lay wax da nga xam ne loolu waa tax loolu leer na wax lu wax lu lëndëm joo xam ne doo doo xam lu mu la bëgg a wax te loolu ñun ñi dañ ko daan dund léeg-léeg nga ñëw di jàng ci suñu mbokk yi bu tëddee fi mu tëddee de mooy benn mu sonn wala mu gëmmentu ñi mu walaa bañ a jàngal xëy na waaye loo wax mu dexe waa tax ayo wax mu dexe ay waa tax ga ay maay gëddëm waaye ba téere bi jeex sa darsa bi jeex mu sëg tëddaat jàpp njàmbur kon inna tabiba inna almuallima wa tabiba kilahuma la yunsaxaan la yansaxaani ida huma lam yukrama kon yatawaada xiina kaana wa bi xusnihi maanaam muy am maanaam jamono bi nit ñi di chaque jour nga wax leen ko gis nga yu bees yii nii du jeex yaa des portables dàll yu bees yëre yu bees colka yu bees yii chaque jour dafay gën a baax nga téléphone yi amone juroomi at ci ginnaaw ay alcatel ak ay nokia yi koku jox dal ko wat te ay jamono mo doon aat de yooyu nga yor muy lampe di tak fi ñu naan alise la alise muy tak ngay tiital <laughs> léegi ko la ko jox nga ci jamono gis nga jamono bi di dem ba wara tollu ci aduna yi amat xoma iphone xoma lan ay pro xoma lan yoy am ak dina dem ba ay iphone xoma pro lañ koy xom kooko jox mu sanni la ko loolu nag jurum nga yàq sa bopp ci jamono bi nga war toog di jàng te xam ne li ñëw ci kanam afdalu wa ajwat waaye bu bëggee jamono bi ngay jàng lu nit ñi sol nga sol ko lu nit ñi am nga am ko loolu mënta nekk wa bi bukaihi idha an-nas yadhhakun yani nit fay way même dul jàng kat nit dafa war a nekk nit ku way nit koo xamante ni da ngay am jubluwaay mais nit koo xam ne daanaka sëñ bi da ngaa waye dee waye dee waye di kooku doo jëm fenn nit day way ci boppam xam li mu bëgg am ay objectif yoo xam ne moom lay atteindre pour bëgg koo moom lay bëgg atteindre man lii laa bëgg foog ma àgg ci way ci rek ni deng ni ci deng rek wallahi da koy am soxla doomu aadama xajul ci dara yàlla dama wax ne boo dogee rek ma daggal la bil ilmi bil bil ilmi wal yaqin tunaanul imaamatu fi diin wa jaalnaahum aimatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa bi sabri wal yaqini tunaalul imaamatu fi diin lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun kon nit ki dafa war a am ak ak ak way am ak samt samtul aalim d' doo doon koo xam ne ku la gis ragal la doo doon koo xamante ni da nga naan rek mais it nag doo ko am ni ku jóg rek bëgg laa jaar sàkk nag yow kuy kuy dem sax di di di taxawaal waaye saa doo ma gunge fii boo bëggee toog mu jaar waa fii la diw nekk waaye saa waaye dama fee jaaroon la war nga am benn xaddun fasil booy doxal si diggante nit ñi ñoo xam ne bu demee ba àgg foofu rek dinañ xam ne àgg nañ ci frontière loolu nit da ko war a am rawatina al ilmu jàngkat mais koo xamante ni nit ñi amu ci yow frontière fu nit jaar ñi jaar ci fenêtre ñi jaar ci bunt yi ñi jaar ci toiture bi la foog nga aar sa bopp aar goo xamante ni nit ñi bu ñuy wax di dof doflu ak def seen yëfi bopp ba ba agsi ci yow nag am na xol bi ñu fa agsee moom kenn du leen ko wax ay foofa la ñuy taxaw man wi bi ñu nekk moom doo ci nekk loolu sifaat la melokaan la ci melokaatu jànkat bokk na ci liñ jëlewaat ci fadayil ibnu iyad radiallahu an من ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق سبحان الله فضيل ابن عياض نينا جانك كتب القرآن الكريم ورت ديس كان صغلا من في ila alxaliqati fa man duunahu ila alxalifati la wax sax nee na tàmbale ca président de la république ba ca suuf doo gis kenn sa aajo amoo ci kenn soxla wa yanbaghi an takuna xawaaiju xalqi ilayhi yow kay la nit ñi di soxla te loolu ak mën a nekk yàlla bindul kuy dund ci àdduna bi te doo lekk doo naan li fi nekk kay mooy foqale rek nit nag bu xasee foqale dana yóotu ba yóotu lu koy yàqal am ñoo xam lu ñu am dañuy xëcc yaa ngay laaj fee yaa ngay demande fee yaa ngay collage fee fu ne nga bëgg faa wax di laaj c'est laaj moo baaxut ab jullit du laaj dafay toroxal doomu aadama Abdullah ibn Abba Abdullah ibn Mubarak bi ñu ko fekkee muy jaay ci marché bi imam kabir ñu ni ko yow da ngay jaay ci marché bi mu ne naam afaalu dha li asuuna irdi wa ukriba wajhi wa astaina bihi ala taati rabbi li tax may dem di liggéey di di di rayante sama ndoxum kanam mi laa doon pour ci kanamu kenn du ma tàllal kenn sama loxo di la laaj waaye damay sàmm sama bopp nit ñi lu ñu la jox dinañ ko wax ah moom day moom day war rek di laaj fii la jógee de même bu li joxul ah moom di sëriñ bi ay boo ko gis ay waay kilifa ga ba mu ñëwee di seet si jenn waay waa ji tëb ci fenêtre bi pélu ñu ko yow da ngay xaru xaram mu ni lépp gën mu fekk ma fi ndax mo fekke du baax laaj parce que da ngay dem di laaj nit di laaj ba bu la gisee yaram day daw bu la gisee day làqatu loolu baaxul loolu xam nga toroxal nga sa bopp wa astaina bihi ala taati rabbi nee kon nit ñi ñoo war am aaju jëm ci yow qala sami'tu al-fadail قال سمعت hamil al-qur'an hamil rayat al-islam الإسلام wa al-qur'an ñoo gaddu drapeau l'islam kon moy نيوم bu ñu daano rek musiba am guerre kay bu général ba bu drapeau ba daaroo rek gañe nañ leen kon mooy waa alquran saa yi su saa yi suñu daanoo ba nit ñi di leen joggi rek daaneel nañ lislaam laa yanbaghi lahu an yaxlu maa man yalgu an yalgu maa man yalgu nee na wurte fo di ànd fokat yi wala ma maa man yashu di caaxaan ànd ak caaxaankat yi wala yalhu maa man yalhu benn la rek kon laa yajuz lahu laxwu wala lahwu wala sahwu mais da ngay gis ay xale yu bokkal alxuraan boo dajeek ñoom yow sa yaram bi day daw sol ay tubay wàcce ko dakk ay mbir jaagar jaagar yi cest à xam nga complexe moo baaxul lu ñuy daw mooy yow boo yow seer nga yow xamoo xew yow xamoo see bi ni muy doxee yow pour génn ci loolu nag yaa laaj la moo tax booy doog a jógee ci daara bi kenn du la mën a téye da ngay dox lu ba da ngay daw a daw nag ba mujj xam ne ndekete après nga taxaw gis ni defoo dara. parce que li ngay bañ rek mooy ñu la ah kii concert la boy booy bi ci daara ji la jógee comprendre affaire bi ni muy doxee non waaye booy bàyyi leen kii waaye ki xamul li xew pour nga bëgg décomplexé wu day tax nga def ay njaaxum moo tax ñoom ñooy gën a garaaw sax ñi ñi nekkoon ci ci dëkk bi loolu déedéet yow da ngaa jàng woon alquraanul karim ñu tànnal la li gën ci lu ñuy tànnal nit bu nit ki dé jaay boppam ci yooyu affaire àdduna jaay ko alquran yow jaay ko njub te xam ne al aqibatu lil taqwa wal aqibatu lil muttaqin mais bul wane ni man nag teewul woon man xam naa ni mu demee noo xam naa affaire bi ni muy doxee dangay ngay sànku parce que dañ laa indi woon pour nga génn ñii ci caaxaan ñu ñu nekk Fadal ibnu Iyaad ba tey wax na ni innama nazala alquranu li yumala bihi alquran dafa wàcc ngir ñu jafe ko fattaxada annaasu qiraatahu amala nit ñi jël njàngum alquran def ko mécc waaw ah, ah, dañ leen a jëf loo ngeen jël njàng ma def mécc bàyyi jëf jëf ay li yuxillu xalaala wa yuxarrimu xaraama loolu tax ñu wàcc ko jële nañ ci tey ba tey ci abil ward mu ne xudayfatul marasiyu dafa bind yusuf ibnu asbaab ni ko balaxani annaka bicta diinaka bi xabbatayni marasiyu dafa bind abu yusuf ni ko yow de dégg naa sa diine da nga koo jaayee ñaari dërëm waqafta ala saaxibi labanin mu ne ko loolu lu mu doon mu ne ko da ñëw fi ñuy jaay soo ci jaaykatu soo ba nga dem fa qulta bikam haada ngay jënd ci moom potu soow walla gambu ni ko lii loo koy jaay mu ne haada laka bi sudus lii de juróom benn laa koy jaay fa qulta lahu laa bi sumun sumun laa koy mën a jënde moom xam gim la xam mu ni huwa lak kon jëlal ay waay cest à sëriñ daara bi nga doon jàng ko def alxuraan bi nga doon léegi yow waratoo jënd dara ci nit ñi waratoo def dara boo ñëwee nga ne xanaa xamu ni may diw ay waay léegi boo dee diw nag ça pour pourquoi pour pour quelle raison subhanallah te loolu dafa mel suñ jamono jii la may diw loolu moo ñu topp ba lii xew léegi rek ba nga xam ne boo nekkee ab sëriñ dootoo nangoo liggéey dangay ngay jàpp ne dañuy jël di la jox lii rek moo ko fi indi mooy jël diine bëggu koo def commerce ci sa diine ji nga xam sa njàng mi nga xam te pourtant ñi doon jàngale diine dañ fay nekkandoo woon ay buur ñoo xamante ne ay garmi lañu woon nu seen yoon nekkul ci diine ay jàmbaari fàkkati lañu doon te liggéey ci ci réew mi nag bari na tey lu am loo xamante ne jàmbaar fàkkati yi ñoo ko ñoo ko fi def mais doo gis kenn ñi di ko wormaale ci loolu wala muy war kenn ci sama maam jàmbaari fàkkati la woon dammel la woon wala teeñ la woon wala sama maam euh, nangam la woon daa mais ñuy waraate ñëpp. diine côté diine pour lan côté diine pour lan képp koo gis muy moqar ñi loxo daanaka bëgg bu nit ñi toogee ci mu toog ci kaw bëgg nit ñi di ko jox rek du sa du ni sama maam ab dammeel la woon wala sama maam ab teeñ la woon wala sama maam barga euh, baraag la woon wala déedéet waaye sama maam boroom xam-xamu diine la woon kon ci diine lañuy jaar pour bëgg a nit ñi loolu nag nee na ko yow kon da ngaa jaaye sa ah yaa jaa'ila diini lahu baasiya nan la ko abdullah ibn mbarak waxoon ixtalta li dunya bi lazatiha xaw ma nu mu ko waxee wax ju doy waar la wax sax moom it kenn mënut xam xam loolu mooy lan mu ne ko ikshif an rasika qina al ghafilin mu ne ko nag bàyyi sa caaxaan yi nga nekk wantabih min rafadatil bawta nee na bàyyil nelaw kuy faatu yi ngay nelaw waclam annahu man qaraa alqur'ana summa aathara addunya lam amun an yakuna bi ayati llahi min almustahziin min almustahziin nee képp ko am da ngay jàng alquranu karim te àdduna képp nga ciy wut nee na ñiy fawee lislaam yow ci nga bokk ñiy fawee lislaam yow ci nga hmm? ci nga bokk wallahu mustaan kon loolu laa chakkari booy xool dafa mel ni wax dëgg yàlla jigéen lool li nga xamante ni mooy li ñuy dundoo jële nañ ba tey ci euh, maxlat ibnu abil xasan من اللي كان ميمون ابن مهران مهران يقول لو صلح أهل القرآن لصلح الناس نينا وا القرآن بون جوب رك نيب جوب باسكو هم الرأس اصبر نكون بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس نينا بوب بو جوبي رك إذا صح الرأس فليس على الجسد بأس لول لا نيوخ كون لي ديس بري mais man nañu taxawlu foofu ndax waxtu wiñ daan jël jot na bu ñëwee xëy na tuutee ci des rek ñu dugg ci baabu axlaaqil muqrii ida jalasa yuqriu li wajhi wajhillahi azza wa jal melokaan nag ñi nga xam ne ni yemuñu ci di ay jàngkat kepp mais ay kat nag lañ ay sëriñ yoo xam dañuy toog di jàngale hada wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain wa rabbuna allahu taala alamu wa nisbatu ilmi ila aslam